sen jannoo ak taskatu xibaar yi ñi nga xamanteni ñoo di jeune leader yi nekkee ci département bu Kër Massar ñom nak nee nañu rek dal di nañuy pare ngir rek dal di dalal ki di Cheikh Kanté ak Farba Ngom ngir ñu dal di and jëlat département bu Kër Massar tek ko ci loxo jitu rew mi Macky Sall. Euh, des jeunes leaders du département de Kër Massar dañu ñëwoon pour wax def une déclaration de presse di xamal ni di ñaanal di di xamal président de la république. ni ko ñi nga xam ne da nga leen fee yónni muy émissaires yi ñëpp di ci jiital Cheikh Kanté ak Farba Ngom ni leen ñun taxaw nañ taxawaay boo xam ne soo leen ñëwee dinañ ànd ak yéen ci liggéey ànd ak yéen ci liggéey bi nag dafa am loo xam ne nii tamit dañ leen bëgg ngeen bàyyi ci xel ndax ñun ñëpp xam nañ ni président Macky Sall moo créé département de Kër Massar li fi xew xew fi kon ñi nga xam ne tey dañoo bëgg a jël relève bi daf leen war a renforcer jàppale leen renforcer jàppale leen nag nekkul rek ñun ndax tubaab nee na le moyen ay saabu na xool personne ressource boo xam ne nekk na fi mu jàppale ko renforcer ko plus particulièrement les jeunes leaders ndax am na compétence yépp yoo xam ne soxla na ko pour mu mën a taxaw taxawaay. ngir jotaat ci département bu Kër Massar lii moo yitteel ñi nga xamante ne ñoo nekkee ci jeune leader. nekk fii ci diwaanu Kër ma Massar li moo tax sax ñoom ndaw ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci boobu boobule kuréel ñi xam leen ni daal pare nañu rek ngir daal di waxtaan ak ndaw ñi waaye it wane li nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall daal koy def su ko defee ñu mën ci ñaax ndaw ñi mag ñi ak ñëpp rek ba njiitu réew mi Macky Sall mën a jotaat ci li nga xamante ni moo di département. bu loolu jàllee ñun dafa am benn plan d'action boo xam dañ koo teg ci département bi want que ni département bi mën nañ ko reconquérir. reconquérir bi mooy ñu waxtaan ak ñëpp waxtaan ak jeunesse bi waxtaan ak femmes waxtaan ak sages waxtaan ak enseignants yi waxtaan ak cadre te ñooñu taxaw nañ pour taxaw lu mel nii def ko mel nii yaakaar ngaa ne loolu man nga ko ndax tey ñu ngi taxaw sol ay lakos wane réalisation yi nga xam ne président moo ko moo ko moo kon nag ñun li ñuy wan wane nañ ko te ñeme nañ ko léegi nag li ñoom ñi nga xamante ni nag ñoo di jeune leader yi nekkee ci diwaanu Kër Massar dem nañu sax bay xamle ni pare nañu ngir li nga xamante ni mooy carte yi nga xamante ni ñi ngi ñu daal ci taxaw def ci ay jéego ba nga xamante ne nii euh, lii di carte yi dina mën a dem bu baax a baax a baax waaye nag ñoom ñi nekkee ci ñi ngi wax président bu baax ni ko vente carte yi taxaw nañ pour ànd si pour jàppale ko waaye nag bu mu fàtte ni war nañoo armé war nañoo outillé ndax ay maire jeune ñoo nekk fii ci département bi maire yooyu nga xam dañoo bokk ci yeneen parti kon bu renforcer collectif des jeunes leaders yaakaar naa ñoo dinañ leen faire face te boobaa jeunesse bi dinañ ñu déglu ndax tey fi ñu jëm jeunesse bi la ñu war a renforcer kon nag lii mooy ki nga xamante ni moo di Cheikh Kanté dalaloon na ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kuréel googu di jeune leader ci dalal gi nga xamante ne nag Cheikh Kanté mi ngi ko doon amal ak jeune leader yi nekkee ci diwaanu Kër Massar am na ab koppar gu toll ci ñetti million boo xamante ni daal dina leen koy jébbal lu ni mel nag bi mu amee ba noppi mu nekk mbir moo xamante ni daal dinay indi féewuloo ci seen biir ndax lu ni mel nag dina yomb ci ñoom jeune leader yi ñu fexe ba def li nga xamante ni nii moom lañu bëgg te mooy jël département bi teg ko ci loxo njiitu réew mi Macky Sall am déet li ci kanam raw li gët